marché sañ ci yeb ñar ndéem la woon kenn ku dul Abdou Mbacké nag mënoo ko lutse ndax daa am ñu ci opposé woon ay kilifa mhm. mu dagg ko fexe ba joxe ko dafa kër Sëñ Tuubaa dafa jumaa daf dafa marché joxe ko ci njëgu xéewale juróomi junni lañ la koy joxe nga taxaw man mii xam ni maa taxoon bañ dagg marché ba doon fa def ay manifestation bi dëkk am maa def man mhm. pour ñu lutse marché bi mhm. ak waxoon gars bu leen kenn fayeeti taxi ak daan def 23 heures ñu dem xeex moom di ko andil ay buri man laa wax man mhm. ba ma daggalee ne ma damay daggal ci marché bi ndax dama doon jaay ni ñëpp damaa yor paas di jaay ni ñëpp mhm. bëgg ci marché bi waa marché bi dañoo lànk ne du man laa wax yow du am dañoo lànk ne du ma ci am man damaa xeex ba lépp am lépp sama sama xeex la amee ndax maay man maa jël man fay ay rajo fay ay télé ñu ñëw def ma def ngandam manifestation yuuxu na leen ndox mi courant bi nangam nangam ni ñi génn mbooloo mi jeex du ma tudd télé boo def mhm. naa fi manifestation boo xam ni ay télé ñaari télé ñett télé laa jëloon manifestation bu nu mu def ci Touba ba sëñ ba sax da ciy génn di ci wax mooy manifestation ba ba mu tere woon ne bu fi kenn moom man ko def bi sëñ bés Abdou Khadre ni woon Touba sëñ bi ne def bay ko fi tere man maa defoon mhm. euh, lay delloo baax a baax. dama taal ñu ngi jaar baax a baax. ñu ngi lay delloo bu baax baax. merci jërëjëf jërëjëf. wax dëgg yàlla taxawaan sañ ci moom kenn ku ne teg na ci bëtam. ku soxorut laa wax. merci jërëjëf ku soxorut wóor na sëñ ci waa Mbacké gis nga bu rafet bi nga xamante ni moo ngi koy liggéey sañ ci. merci jërëjëf bilaa walaay jàmbaar dëgg la. merci jërëjëf ñu nga waa sañ ci yëpp nañu ko jàppale. Ah, ah, ndax ku bëgg gox bi la wóor na Seexul Xadiim moom da danaan xeex avant lii di am. Ah. wóor na sëñ ci waa Mbacké yàlla rek moo tax may wax. ba mu dalee di xeex boobu kenn dugal ko ci biir kon dafa fexe ba ñu dugal ko ci liste kon may ñaan waa Tëngéej ñu jàppale ko bu baax a baax rawatina ndaw yi waaw man sama mbokk ndaw yi maa ne ñu ñaan nañ ko jàppale te yàlla sëñ Tuubaa tax waaw maa ngi rafetlu émission bu baax a baax nag baax a baax sëñ Modou waaw di la ziare yow jëriñ yi nga xam ne yaa nga sam sam sama ne yaay nga bokk lay delloo ziar jaajëf ku am jom ku sant jëng day am jom am fulla am fit te da da ñeme da ñeme pété te day ñeme fàngaaral koo àndal dal nga ko fiis xam nga ànd ak nit ba pare buñ buñ caravane ngay laqatu day am ñu ci am ñu ñoom dañuy ànd ak yow sax ci làmmiñ ci panel bu boo nee caravane ñu làqatu dugg muuru est-ce jën bokkoo ci yow ah, mooy li ma dañoo gëmul seen bopp am na ñoo xam ay ginaar lañ dañ leen a cofal xam nga mu la nit cofalee hmm. doo bëgg a feeñ ci taala parce xam nga loolu am na gars yi dañu leen cofal bu ñu leen cofalee nag doon nga feeñ taal ndax da nga bañ la cofaloon du la cofalaat mais taala waaw est-ce que est-ce que tamit ci département boo xamante ni 14 maires yi. Mhm. am na 14 maires yoo xamante ñu ngi bokkoon APR tey dem rallier. dem xaaj bi yëpp dégg naa dem nañ. waaw dem dem ci liste. parce que boobu la gën a yomb ci ñun man loolu laa gis xoolal sondage yi ma gis nii. Mhm. sondage yi ma gis 90 pour cent ñun ñooy gagné ñun. mais est-ce du metti ci yéen. Ah, mën naa metti waaye metti gi day neex rek ndax lu neex metti. moom ku bëgg lu gaay naan ku liggéey jariñu xiir yu métti moo ngi bëgg am ndax am na lu may liggéey ci suuf loo xam du ma ko Abdou sax xamu ko moom ndax man dafa ma bokk daa bari man xam nga man kuréel tuwaa yi ngay gis yëpp xam ne dañ dañ leen ràññee xam leen bu ma tuddee tur rek day am ñu dem dawee wuti foofa wuti fa dafa wut ay koom damay am ñooy côté yoo xam foofu ma nëbb ko am naa sama côté bopp yoo xam dama koy nëbb ba affaire na teel ñu soo ko xam xew na mhm. am na kuréel yu mag yu ma bokk yoo xam ne ña ma ca bokkoon ñu ay mbootaay jigéen di ay doole yor ay ñetti téeméer yi ak nangam maa ngi liggéey ak ñoom ci suuf liggéey boo xam ne amul taal oto dem amul dara ci téléphone ak ñoom man ak ñoom di leen envoyé bulletin yeeg yi xew yëpp ñu koy xam liggéeyu suuf bu tar boo xam ne bu génnee fël la dañ naan lii moom nu mën a nekk ci Touba parce que Sëñ Saliou Mbacké maa ngi koy def moo gën ko xoolee daanaka folklore la beneen liggéey bu a tar boo xam ne moo gën a sax yi gars yi di def ci maa ngi koy def mhm. ndax damaa bokk ci kuréel yëpp kuréel bu bu mënoon naa fi tudd lu ma ñeenti kuréel yu Touba yu gën a ëpp doole man maa ci biir. Mhm. nan nga jàngatee tey euh, comme ni ma ko waxee léegi yenn certaines maires yoo xamante ni dem nañ ci liste Pastef ci département bi dan nga jàngatee loolu. loolu ñàkk gëm sa bopp dong la ndax Pastef googu mhm. fay dem fekk na def liste ba pare nañu wax dëgg yàlla tax. Mhm. doon ba dañ faa dem avant. pour ñu yóbbu ci ñu xeexal département bi man nangu naa leen loolu dama lañ koy nangu ndax damaa bëgg département bi ci boppam Euh, en assemblée nationale bu ñu fa amee 5 wala 6 wala 7 wala 8 yu dem di ko xeexal loolu njëriñul gox bi la. du ma ko bañ man taala mm-hmm. leader yi nekk fii ñun ñu gëm leen jàpp ne a xeex ñu dem assemblée nationale leen mm-hmm. am na benn waaye mu naan waaye yéen seen ngeen gañe ma ne ko ñun xeexuñu pour gañe ñun dañuy nat nattukaay ci ñun ñun parti bu bees lañu yor waaw mais ñoo xam moom ñooñu moom sax seen député da accident la te duñ ko amaat ñoom xam nañ ko sax. ñoom seen xaaj bi ràlli nañ ci Abdou démb démb. Hmm. du ma tudd seen tur xam nañ seen bopp. am na koo xam ne mu ngi bokk nit benn nday ñoo ko bokk ba pare mu ànd ak mbooloo moom bàyyi ko fa moom dem ci Abdou démb moom la doon leen fekk ñu leen ñuy ràlli te ci gaa yi lañ nekkoon ñoom ndax seen i leader seen bopp yi bopp sëñ bi yooyu boo ko boole ci gox nag nga dem ba sew sa nit yi bopp yi nga dëkkal xam ñoo jàkkaarloo ko dañu lay bàyyi dem ci nit ñi ngeen 5 xaw ma 6 députés cinq yooyu yëpp duñ ko ama buñ ko amaatee ci ci Abdou Mbacké Ndao lay dugg ah ndax fii xam nga ne raw gàddu la ñun ñooy buub lépp maa la wax fii bindal teg buub lañ koy def Abdou Mbacké nag mooy buub Tuubaa gi yëpp département bi leneen fu féet ñu toog xoole ay bët te ñu jël nag ñu am fulla lañu am fayda nii may waxee yow bu ma jàkkaar Sonko ni laay waxee moom ñun amuñu rap rap ak ak ak ah. forlaaku amuñu amuñu dem di di tàllal loxo ñun amuñu loolu ñun buñu demee moom mais taal est-ce que jàng ah. nga liste yi jàng jàngat nga liste yi nekk ci département bi jàngat nga liste yi liste yi am nañ doole de man liste yi daal gis naa leen waaye daal xam nga xam nga monsieur le maire Gallo Ba ku mu dooleel hmm? yoo xam naa doo déglu panel yi xam nga dama reetaan sama ko ne li ne ci panel yi kenn ñi ma ko génn ci rajo yi xam naa ak télé yi li ne ci panel yi ku ko génn ci rajo ñu xam ne lii xew am na luy xeeñ kon ndax ñoom sax bëggu ñoo dem foofu ñoom benn ñoom ñe nekk fee ñuy fekk ñooña booyee bëgguñu ñu ñëw ci ñoom sëñ bi xoolal ki xam dañ da xam wolof day wax ni ku bëgg fu mu